gis nañu ci taxawaay commune Tivaouane Peulh Niaga Niakoul ci élection yi passé ñëpp génn voté massivement pour coalition Diomaye pour mu gagné président léegi ñun nag dañoo nekkoon di liggéey boobu ba léegi développement commune bi mais comme El Hadj lu mu wax rek soog wax ko dañ ne ñun teguñu benn étape euh, euh, tey pression mais dañuy fàttali. ndax commune Tivaouane Peulh Niaga Ñàkkar dafa yàgg di xeex am électorat yi am doole ci département de Tëngéej ci département de Tëngéej di xeex xeex bu métti nag ñëpp di voté Macky Sall président Macky Sall 2012 waa commune bi fol ko mu toog commune bi gisuñ dara élection yi ñëw ñëpp sanctionné votel coalition Diomaye population bi yëpp kon tey baax na tamit <clears throat> ñun ñu doon dem ci kër yi di waxtaan ak ñoom di def ay caravane bu jeexee ñu waxal leen ndax bi ñuy dem dañu leen waxoon euh, projet bii mooy projet bu baax bi ba ñëpp gëm ko adhéré voté kon tey baax na ñu ñëwaat waxaat ak commune bi gëm loo leen ne projet bi ñun dañu gis si président bi discours yi mu def yëpp ñun gis nañ ko dégg nañ ko kon dafa wax lu am solo mooy sénégalais li ñu bokk ñoom ñëpp ñoo koy moom kon tey loolu dafa am solo ndax tey sénégalais yi dañoo sonn te loolu ñu ñun ñëpp def nañ constat boobu noonu kon tey dañuy ñaan rek président bi fi nekk mu bañ a fàtte commune Tivaouane Peulh Niaga Niakoulane ndax dafa am lu bëri lu fi nekk El Hadj Cissé wax na ko léegi soog wax ko mooy tey problème bi fi nekk mooy li ñu njëkk a kaas mooy li ñu njëkk wax mooy problème sécurité problème sécurité dafee bëri te di laajte tali ci biir tamit mais yi fa nekk dañuy root dañuy root ba seen loxo yi di dàgg mooy côté quartier bool semb ba ci biir kon loolu tamit te ñun si dakaar la ñu bokk kon waratuñu waratuñu di di ay ndox ci ay teen ak yooyu kon loolu dañuy dañuy fàttali président bi na bàyyi xel si loolu noonu ñuy waxaat tamit problème tey foncier bi ndax gis nañ littoral bi ni ko gars yi def séddoo ko bàyyi waa dëkk bi te dafa am lu ñu tuddee droit coutumier muy suñu cosaan ak suñu ndoxam te ñun suñu maam ñoo fi dëkkoon kon tey dañoo soxlawaat suñu ak suñu yelleef ñu jox ñu ko. bi nga xamante ne dafa war nekk ci commune bi te am nañ ci yaakaar président bi dina ko dina ko kii ndax tey am nañ benn un hectare boo xamante ne am na nañu yaakaar foofu lañ koy def kon ñun. budget bi rek la ñuy xaar te ñu ngi ñaan budget bi ñëw di wax tamit ci problème soriwaay bi ndax tey Tivaouane Peulh dafa sori ba nga xamante tey am nañu VDN bi mais bëgg nañu am tamit beneen yoon boo xamante ne day jaar nooy pour booy dem Lac Rose ak booy dem ndax booy dem Lac Rose da ngay obligé dem ba croisement Tivaouane Peulh nga pare wala nga dem ba Sokaabe nga doog a dugg ci biir te mënoon nañu am yoon boo xamante day jaar ci littoral bi dem